وبحد من موسى كلام لاي ما بقري على جفر لاي وبحد من موسى كلام لاي ما sant tey xam le mbirum alaaje ba ñëpp xam le moo yeyoo jumaa ji ngir ba maanaa feeg jàngu leen fiin baa sëriñ Fallilu laa def sëriñ Tuubaa booba wute naag tey léegi xalifa penkook soo ngi ñëw sa nawle dee fi booba la seexi fi newoon gëmuñ ko woon te jéemuñ ko asal xamuñ ko woon man jàmme dóor nañ ma kalaame nañ ma ngir yow ta boobee tuuti gon ñu dëñ ma walbati baati na waaye jaral nga ma koy yàlla nobbe na yomal xiyaamati ca laa lay toppe waaye adduna ji taxul may Cheikh Fall naddul nu ci boodi yeeg may yi tabul nu toppee sunu bon geeg may yi Cheikh Fall naddul nu ci boodi yeeg may yi nu toppee sunu bon geeg may yi fafal bi na maa naf na axlo wala tafal bi na maa naf na axlo mala teggil nu tiis yeeg nattu yeeg balaay ba buñ la dee si sol balaay xam naa sa tawal di man jawaab la la ma waxoon lañ tontu mbaa isaab la na jullit dayoo kaay maqaama mbaam yu suppi ñaawte bilub xiyaama maa ko waxoon suy sayid gaawaan tegil nu yen bi yow xalifat samaan ndax may digal ndaw ñu lu ñuy fàttalikool oo xam ne li suñ ko defee xeddaliku te su ko seeni bàyyi defee amay ngërëm ci bamba ak Cheikh Fallou dollikuy dërëm seen digg ak Cheikh Bamba ak Alaaji mi yàlla jox jamono jeg jumaa topp bakkan moo ëpp tey topp ndigal te sa bakkan bu lay digal daf lay dugal topp bakkan moo ëpp tey topp ndigal te sa bakkan bu lay digal daf lay dugal man waruma diri ca um baa may tere waaye dama faaleetuwul ku may mere ba tax ma jóg di la dagaan tey woote ba gon ñu gis laa te kenn du wuute alaaji falu lay maa ngi somplo man jaame sab jaam léegi door a jomlu xam nga li ma i sombulukat tibal ma tebul ma sompal jeexaloo na dil ma xam nga li ma i sombulukat ma tebul ma sompal jeexaloo na ma walaay man dolliku naa ak wóolu ko ak rafet njorto ba fa wakirlu way wi ko def ay buntu bunto xibaar yu bokkul ku ko déglu santo buntu bu ñëw ngeen fàtte buntu be woon tamit xibaar li fi xewoon ak li be woon mbirum xalifa diggam ak waa Makka lay bëgg wax ba kenn sikki sàkka dinaa la tax mu yor juma ak fa mu jaar nga xam ni mooy allah bi dinaa la wax tax mu def xalifa fi zahirin wa baatinin ba foofa xalifa day aw ci siraatal mustaqim bàyyi xaraam bàyyi ci biir jàpp na xiim xalifa ndey jëjëj ba musoobe ngiray sërif lañ faw xanañ doloobe xalifa lay jubóog borom mi doole xaqiqatoog sariyatoog inni jaay lii jaal naa te tudd falilu nga ne la def sa bee xalifa mu ne su serifa wa mu sadiqatan serifa xaarifatan marriyatan marofa ndeem di mbokkam jaaratul ilahi ummu xalifatu rasulullahi wàllu ndeyam di wàllu yaari maamam baayam baay may daayam ma dellu wax leen mbir mu tos ñiin wuy ji alaaji falu day jar na nuy ji am na jumaam jàkkaam na marché sanc na ay njëndi na leen commerce yi ca jamonoy baayam la sancoon dindi toj aaliya su da ko mbay mooy ndandi ginnaaw sëriñ tubaa la sancoon aaliya yàlla na san waasiya ay kilomètre la baylu tooli aliya pikot ko lew ko ba ca tooli aliya Cheikh Fallou Mbacké ku mu woolu Tuuba mu war gaaw taw ji ngir bis booba ndax baay baay xalifatu rasulullahi mu war mu wuy abadan laay alaaji Fallou Mbacké kum liggéey mu war futti ku la def leen loo baay ma tax so su mbaa nuy ceebu nooy niin faaliwu nam ceebu bàyyi ma tax nuy soosu mbaanu ceebu su loxo bañu la bur yàlla seede na lii yaaram bi kenn bañu yow yaaram bi kenn bañu li lay biral gaañi ndax laa biire leen te ku xam war naa xamal ku xamul yaaram bi kenn bañu gaa yi diine danaa leen wax ki fee sama bambaay ki fee sama yaaram bi kenn bañu yaaram bi kenn bañu ko déglu te sellal xol yi kuy wuta lu ne ci man na ko xam yaaram bi kenn bari li wax ak i mburu ak susan daje neen taxul ma jóg di ko wax daaram bi kenn dañu lii ma wax yàlla laa koy seedaloo mi ci biir ak téere yooyu duñu far yaaram bi kenn ndax lii keroog ba ma koy jàngat taxaw mu taxaw te taxaw mu taxaw yaaram bi kenn dañu la wax léegi fukki jikko ak ñetti baat yoo xam ne moo ko fi doon yaaram bi kenn cosaan li doon ko mu dig doon neef bu jiitu ba tey nga nii lii yéen a koy yor yaaram bi kenn dañu la bi yaay doom yaram yooyu dañuy sa yaaram taaru taawu dib tab bi kenn dañu la njàmbaar gu mat sëkk ak xam-xam ragal sa boroom ak jaamu mooy seeni biir yaaram bi kenn dañu la ak gu mat ak fulaakum xel mu jub mu rafet nga ak si man ci baraw bi kenn dañu sa say jaloore i sembar yi wi laa bëggatee laal laal gu wér ba mu biir yaaram bi kenn bañu la yan bi ngay sa bopp dënkañ jëwey ku la gis nga mel ni yéen woo yaaram bi kenn bañu la doo tegi doo tege doo de te fuñ la yaakaaru ta bi kenn bañu la doo tegi doo tege doo de loolu koy aji laaj te fuñ la yaakaaru ta si yaaram bi kenn bañu la yow jaamu yàlla di sab liggéey joxe di sa baax sowey diir fu mu doon yaaram bi kenn bañu la yoo jaamu yàlla di sab liggéey joxe sa baax. na nga di séenu. mi ngi leen di séenu. na nga leen di déwén. na nga leen di déwén. ngeen dikkee lu ko raw. ngeen dikkee neneen lu ko raw. ci xanam yëpp. ci xanam yëpp. amiin